téléspectateurs yi bëgg naa leen ziar naa leen tey nag newuma stade Demba Diop newuma Léopold Sédar Senghor maa ngi Gambia stade u Bakaaw biir Gambia Jams production jamaïcain moo fi woote nga xool stade bi nu mu mel ak ay nit leket bu ak kan France bu xool public bi xool nga mbooloo mi pour wan la kani jamay kee rek ni mu mer bil Gambia macha allah gis nga découverte bi dafa fees xam nga lii lii dafa rafet xulle lii daa rafet xoolal lii xoolal mbooloo mi xool mbooloo mi gaa yi xulle France France France France leket leket France leket daan ay beere orange beere orange beere orange waa jóg leen beere orange leen ma benn beere boog andi may ma benn voilà xule may nañ ma beere orange orange ana ngeen ndeysaan hop hop hop hop Boy CFA Boy CFA Boy CFA Boy CFA Boy CFA France bu Banjul la ngongu ànd ak Serigne Ndiaye numéro 2 France a ngongu waaw mais Serigne Ndiaye maa ngi lay ziar. maa loo seq ak France. France am tam ne la sama sama jumeau hmm. damaa gis. laaj naa ko fii mu ne. yow loo ko wax loolu lay def. waaw ah, mais c'est pas la première fois chaque combat sama kër la koy préparé chaque combat fu may bëree boo yëpp dañuy jag kaar ñëw Dakar Sénégal si boppam sama frère la quoi vraiment. non sama frère ah, la. sa frère waaw la. waaw mais dara sant rek ñaan yàlla mu yokk ko macha allah. sa combat ak Sococim fu mu toll. ah, ah. man pare naa. bu doon soo pare hmm. naa. xool kii mu toogee. xool li nekk si bopp bi. maa lay fay. looy ñaan. man France daan lekk dóor ko mu daan loolu rek laay ñaan waaw. li sa bopp bi lan la. li sama bopp bi li sama loolu ay bagages la mbir la rek. <laughs> doo ko abal. waaw su ma ci paree àll ko su ma ci paree naa la looy wax leket. ah leket leket. mu dëggal boppam rek bañ fee teg nit ñi ñuy jëmale xaaji guddi waaw bu bëggee combat bi gaaw mu gaaw bu mu yeex mu yeex mais dañ koy ñaan rek yàlla mu ñëw arbitre siffle rek waaw mu maa mu ñëw. wala ñu jëli ko rek. France bu Banjul maa ngi lay bëggee waa mais champion bi si loolu. grand rek ana waa Banjul. waa Banjul ak nii. de. grand maa moom Banjul dañ koy bañ rek mais maa moom Banjul barke Serigne Touba Banjul Serekunda ay maa leen moom. borom Banjul ak Serekunda. yeneen yàlla Mouhamed xoolal sa waay fële rek la am ay nit te fee ñoo ko bokk lii yëpp man la ñuy supporter barke Seydina la moo waral mi di la topp. sant yàlla rek comme ni ma ko waxee woon am ak ñëpp jàmm. sama xol lu tilim nekku si man ma yéenee nit lu bon yàlla naa si jiitu barki sëñ Fallou may yaakaar billaahi wallaahi. mais pare nga wax dara pare naa bu yàgg. grand pare naa bu yàgg depuis jàkkaarloo ba laa pare. ba tey dama pare barki Serigne Sall. kon nga ma ko de. billaahi wallaahi talaay pare naa bu yàgg. yaa gën a pare ah, des na si moom waaye man moom sama wàllu bopp pare naa moom. man naa gaaw wala ma naa yéex. bu taxawee du yàgg de. koy def. dama ko fay fekk jël mu dem. ma ko fay xeex wala song. ñaar yëpp naa ko duma naa ko song. waaw kuy daan après. ah man de damay ñaan yàlla may ma ndam. waaw loolu la ñaan. waaw yàlla kon ba kanam daal yàlla nañu yàlla may ndam. Sefa yaa daan. waaw sama combat dafa niil quoi dafa niil man ak Vélou Mbuy ba town waaw dafa niil waaw. Sefa la moo tax Sefa. waaw Sefa benn xale la rek dëkk Sénégal nekk Barthes. Sénégal nga dëkk. Sénégal laa dëkk waaw. ban laa dëkk Bawol. waaw dëkk bu ñuy wax caar sama dëkk ak dëkku Koña de ñoo lang ak Mor Kankan waaw ñoo lang. bool bool. man bool bool sama. da ngaa ñëw nekk fii gàll. waaw di Dóor waar. loo fiy liggéey. organisateur. organisateur la waaw. beere beere waaw waaw waaw beere yi boo gisee mbooloo mi mën di tay moo tax combat bi bakkan bi leen si tegoon mëntoon a demee mëntoon a yomb. waaw mais comme nil nga beneen yoon rek nga sampaat jaaga. incha bii mooy sama cinq bii mooy sama cinquième benn nil. waaw baax na macha allah waaw incha allah. guy gi mbay guy gi. waaw borom fonde beeg pizza boo demee bégal ma siyaaral ma lu wér a wér waaw siyaaral ma ko. dinaa ko maa koy bégee fii mbay guy gi meen na waaw. tey nu ngi Gambia. eh dolli ma à étoile à droite waaye boo xoolee dolli maa ëpp dolli maa ëpp xaw ma nag lu muy wane waaye dolli ma fàq na ko dolli ma fàq na ko xale ba bañ éey roofoo ca kaw roofoo nañ ca kaw daan na ko wala daanu ko daan na ko wala daanu ko war naa jeex de ah way na ko daan na ko xulle ci loone may si jaam ana waa Gambia sant yàlla ba mu bëri rek naka dëkk bi fii waaw neex na sant yàlla ba lambu Gambia daa mel ni mu ngi dox nag waaw mu ngi dox ci bu ñu ko tegee ci yoon dina dox waaye bu fekkee teguñu ko ci yoon du gaaw a dox loo tudde teg ci yoon buñ ko tegee ci yoon bàyyi fi violence bi mu ñëwee war a bëre ñu àggali combat bi lambi gambi dina dox waaye fekk loolu amut ñu indi violence indi li nga xam ne nii lamb boo àgg du gaaw a dox. Baye Mandione xoyantaan yeggul xoyantaan euh, Double Tyson yeggul. waaw loolu man daway naa ci contre ñaari mbër yi la parce que tey Baye Mandione dagal wey dëgguma wey. loolu yaakaar ne naa ne warutoon a tax lamb jooju àggul. bii paase tam àggul. bii paase même laalante wuñu sax kenn ku ci nekk sax say say débat yi nga indi woon yëpp daanaka sax laaloo ko muy wàllum gàllaaj yi nga indi woon mu wàllum musluwaay boobu yëpp kenn ku nekk laaloo ko. bu tay bi xalaat nga mu yegg. noo bu tay bi day yegg bu jamee kee bii tey bési tey jii jël dina am wala niil waaye combat bi moom dina yegg. kontaan ci yow Fatou Sarr. maa gën a kontaan waaye di wax Jamaïcain na ko mu gën a góorlu ndaw bu nekkee ci kanam di dem bu mu xooli nekk ci ginnaawam na xooli nekk ci kanamam rek dégg nga maam taalibe Maulana Cheikh Pire la na gëm li mu doon rek xam moom kan bu boobaa doom bu amee ñaan ndey du sonn ci kër àddunaam jërëjëf. waaw asalaamaaleykum euh, maa la nuyu Lamine euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo fi nekk comme ni nga ko waxee rek euh, ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee lii mooy ñu yore sport ki leen jiite di Marcel Mendy ak ñi nga xam ne ni staff Sami Diaw ak ñëpp ñu ngi fi waaw moom mooy directeur bi mu nekk loo xam ne luñ rafetul la parce que comme ni nga ko waxee ñun ñoo amee ministre bi nga xam ne mooy yore tàggat yaram ak fi ndaw ñi mu nekk loo xam ne ni nguur yi Adama Barrow jàppale na yi fi sport bu baax a baax ba na bàyyi na ndaw ñi si li nga xam ne moom lañ moom muy sport te ñun nag lu ñu war mooy liggéey ci pour gis ne mu dem kanam lamb nag mu nekk loo xam ne nii lu am solo la ci réew mi bekk nekk na benn ci sport yi nga xam ne nii moo fi jiitu balaa yeneen yëpp di ñëw ba léegi mu ngee dem di yokku te ñun see wax rek mooy di si gërëm ñëpp waaye yooyu tamit di la gërëm parce que euh, yaaga na du tey saa yu façon yi amee Gambie di nga déplacer Sénégal ñëw ba fii loolu lu moo wane rek mooy comme li nga wax diggante Gambie ak Sénégal diggante bi ni mu rataxee diggante di ni mu mel suñ ñaari njiiti réew yi Macky Sall ak président Barrow jiite ko ñun ñi nga xam ne nii tamit ñoo nekk ministère bi di surtout liggéey tey ci suba bi rek wala si ngoon si bëccëg bi lañ jógee Sénégal jàppale Matar Ba ci li nga xam ne ni mooy sargal Matar Ba bi ñu doon def fii di Fatick. loolu yëpp li ñoo wax rek mooy Sénégambie bi lu dëggu la di lu ñoo wax rek waaye li ñoo jëfelee tamit te comme li nga wax nangu nañ pour jël nangu euh, nangu doo euh, drapeau Youssou Ndour bi président ko ci turam. te mu nekk loo xam ne lu rafetu la parce que dégg la Jam City ñoom ak ñëpp lu ñoo woote lu déggu la te ñun nangu nañ sénégalais su moom sax koo xam ne nii baayam ak yaayam yëpp sénégalais lañ mu dëkk Sénégal ñëw tëgga fii nii làmba si jaaree si suñ CNG bi ñu liggéey pare nañ cee def loolu Gambie Gambien si promoteurs yi war nañoo mën a dem Sénégal tegee fa làmb loolu mooy lu ñoo woote te loolu moo déggu so lii la ñoo wax rek di leen jaajëfal yéen mi nga xam ne nii yéen a jógee Sénégal déplacé ñoo be Gambie. acca ñaari mbër yi laataa ñuy jox Marcel non Marcel mënu see ñak moom lañu ñu tuddee drapeau ma bu dee benn kaddu sax daf ko ciy wax. Ah. Euh, Marcel Marcel flag bi rëy na euh, monsieur le ministre ñëw na adduna yëpp ñu ngi lay seetaan télévision yi ak yi nekk ci adduna bi ak senegal ak TFM ñu ngi seetaan lan ngay wax. waaw xanaa kontaan rek ah, di delluwaat rek di gërëm ministre bi. Euh, ndax suñ boos la suñ xarit la euh, flag bi tey comme ni ñu ko waxee euh, ñi yore sport lañ ko tuddee waaye moom it ñooñu si ronam lañ nekka kon tey ñu jógee ko Fatick munoon naa tëdda sa ne dafa noppalu waaye mu déplacé wu ñëw fekka si ñu fi ñëw dooleel ñu kon rek di gën a kontaan di ko jaajëfal tam di wax ne rek ñu ngi jaajëfal tam promoteur bi ndax lii dafa am lu moo wone lii dafa am lu moo leeral lii dafa am lu moo lu moo jàngal nit ñi Euh, pour man ak ñi maa liggéeyal euh, National Sport Council lii daf ñoo gën a ñaax parce que dafa nduróo ni am na ñoo xam ne ñu ngi toog ñu ngi seetaan ñu ngi gis ñun suñ liggéey bu ñoo def kon soo demee ba nit ñi door di gis looy liggéey di ah, di ko rafetlu kon dafa nduróo dañ la gën a ñaax kon lii daf ñu gën a ñaax te su neexee yàlla nañ si gën a góorgóorlu. acca ñaari mbër yi ana ñaari. eh botti na ko daan na ko ku daanu mbaa mbootoo jiitu ñaari poids lourd mbaa mbootoo jiitu. arbitre lu mu def nii lu xew Félix daan na Félix daan na ko ayca jamaïcain jërëjëf maman. E jërëjëf. lii ku ne neexul na Canada da cee bokk Cekko Mbadof baa ngi noonu ci géew bi Leket. And then you on the Leket, you go sàkk na xulle ab jum la taal waxoon naa la ko ca kër ga lii moo di jum leket ak jum la taal jëm ak moom ca géew ba ab jum la taal yóbbu yóbbu na jum ba de laa ilaha illallah cey làmb ee way ñaari mbër ci géew ba mu nga jumba moom leket ngay taalaat jumba waaye jumbi daa tëë tàkk de xulle lu xew jumbi daa tëë tàkk lu xew ñoo ngi Gambia ñoo ngi jumba takk na léegi ndaysaan dugg na jumba ca géew na de jumba tàkk na mu ngay war moom géew ba mu ngi koy fay fay na ko laa ilaaha illa léegi lay jee xulle léegi lay jeex cey loolu léget ak France cey làmb ee eh, way mbokki Sénégal bi ñoo ngi leen di nuyu di jox kenn ku ci nekk wàccuwaayam ci bés bu rëy bi nga xam ne dañu ko tuddee africain sénégalais waaye sénégambien muy Youssou jigéen Ndour xale bii nga xam ne moom mooy jamaïcain tuddee li nga xam ne moom mooy drapeau bi mënoon naa ñëw waaye li ñuy def fii amul dara lu ko ci ump ndax démb rek mi ngi wax ak jamaïcain live en direct am na ñaari représentant yoo xam ne ñu ngi fii ci kaw ñeent waaye daf leen ne bu leen wàcc ndax ministre des sports ma nga fa drapeau Youssou Ndour moo koy joxe ku xam Youssou Ndour xam ni mu ngi woote intégration africaine ku xam Youssou Ndour xam ni moom ak président Adama Barrow ñoo bokk nday ak baay altine la ak talaata bés doxul ci diggante bi léegi nag France leket am ngeen problème xam nga lan mooy seen problème concert sax mën na cee am waaw waaw lu nekk mën na cee am ndax xam na ni jamaïcain mii moo gën a xam ni Youssou Ndour kenn du ko jam naa ni yow yaa gën a xam ni yow li nga def dootoo ko defati ñun rek xajuñu ci sa kaw ñun ak Babacar ak Lamine ak maa suñu àndal rek sàkkatuma la ak Youssou Ndour te xam nga ni yow Futurs sot sotle nañ la yow xam nga loolu xam nga ni Futurs Médias jàppale nañ la gis nga waa ji nekk ci ginnaaw nii ñu koy wax Pape Sarr moom ak moom ak Birane Ndour directeur général altine la ak talaata bés doxul ci diggante bi waaye président Thiam jërëjëf munoon lii dama koy wax na ma ñëpp dégg munoon ngeen ne kay sénégalais la du fi organise sañ ngeen ko waaye lii ngeen ñu may ci Gambie nii bëgg nañ ngeen ñëw jël ko ci Sénégal ñëw leen jël yéen ko moom ñëw leen jël man tey balaa ma doon balaa ma doon kontaan ñu ne promoteur gambien ñëw na Gambie ñëw na Sénégal organiser na fa bu boobaa ñu jàppale leen bu baax a baax parce que booy wër gor dëgg dëgg dëgg jàppal Gambien Gambien mooy gor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg leen yàlla jàppale léegi léegi nag monsieur le ministre officiellement la ñuy wax ni yow yaay remettre drapo bi waaye bu ñu ca noppee monsieur le ministre yow yaay yóbbu drapeau bi ku ci daan ak ku ci daanu yow yaa koy jël yóbbul ko Youssou Ndour monsieur le ministre kon drapeau bi sa drapeau la mu ngi guddi leket bu baara ak France amba en arrière combat bangook Jamaïcain production moo ko tëggee tuddee Youssou Ndour ñu dem damaa gis say nga def loo xam ne mosuma gis nga def ko taxaw ceeb ab géew di présenté ay mbër ñëpp di la nga def ko biir Gambia lu ko waral ñaar fukki at def naa ko ci làmb bu fekkee daf maa liggéey liggéey bi neex na ma ndax ku laal Youssou Ndour laal na la yow laal na Lamine waaye dafa am loo xam ne dañ ko doon wax Sénégal ñun ñii ñëpp di ñu weddi ñu ne drapeau France ak leket day feesal Demba Diop ba mu fees dell gis ngeen stade waaye léegi ñun suñu ndam la ñun lii parce que kii sama doom la kii sama doom la kii sa xarit la kii sa frère la kii sa xarit la kii sa rakk la waa lii du suñu ndam fonceel xuusal ñaajal demal la voie est libre looy wax sant yàlla jullit Seydina Mohamed sang-sang sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim dinañu kilifa dinañu kilifa ada yëpp di la nuyu Babacar di la sant dinañu Lamine di ko sant di la Lamine Samba ak presse bi jugee Sénégalais Mohamed Foule hélas di nuyu Mor ba parcelle di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu Abdou Aziz Ndiaye ndax Sador en Gambie su neexoon mën na koo bañ a fekk waaye tey xam na ne bis bu mu dugal loxoom jar na ko ndax France la kat tey stade bi 45000 places la xoolal ni mel li xajul arène nationale yàgg naa ko wax ne Modou Lo ak Balla Gaye la nañ ñu jàppale am nañ fit nangu nañoo liggéey buñ ma sponsorisé li gars yi def ma def lu ko raw barki alxuraan luy sa secret nangoo liggéey am yar respecté doomu aadama yi di sàkku ñaan di ñaan lu di ñaan la géew bi dégg naa saf na. waaw mënul ñàkk saf ndax Gambie kenn mësu fi tëgg lamb mu ne. alaaki bagage de. barke alxuraan bés bi li ma ci def. Gaston Mbengue di def Ndakaaru. bés bi li ma ci def mbëri defuñ. lig di ko fa def. li ma feere ci bés bi fayu ma ko mbëri mbëri defuñ ko ci. ndax lamb ji ñëpp dañ ne du àgg du fi amee ñaari mbëri duñ mës a bëree kon bu yàlla defee tey ba ñuy bëree a ah, bés boo xam ne la ñuy sàkku ñaan gars yi ñaanal ñu ci bis bi yegg ci jàmm ci barke Seydina Mohamed yow affaire bi passé Mariama Jàkkeere way tey mu mongo may tëgg Mariama Jàkkeere fa nekk hélas tey mbayang lum ñëwul waaye waa Africell sponsor lañu ci jamaïcain waaye Zador Zador en Gambie avec Aziz Ndiaye et jamaïcain lool day neex waaw ñoom itam ñëw nañ comme sponsor moo tax ma ne sa mënu fi woon a ñàkk waaye na ñooyu ñëpp ñi ñuy suivre ci Equivox TV ñoo ngi Gambia France Mor Asta nekk droite Leket à kii dëkk Banjul muy France kee dëkk Baara muy Leket kee lu mu diw kee daa diw de xule France ñu ngi koy fomp ah France France am na lu arbitre yi d'accordul de cey lamb waaye mention spéciale à Jamaïcain drapeau international nga tëgg Youssou Ndour borom Groupe Futurs Médias l'homme de super étoile l'international borom discutor yi borom Grammy Awards kooku mooy Youssou nduur wallaay kenn du moom def na lu nekk dama naan sax def na li ko war moom Youssou Ndour waaw waaw ñu koy nuyu di ko siyaar sa drapeau la ñuy bëree fii ci Gambie kan moo ko def jamaïcain muy nuyu peuple gambien bi yëpp eh yaram yaa ngay daw ndaysaan fii su fi lamb tolloo waaye Gambie seen stade bii day macha allah rafet na lool vraiment seen stade bi rafet na arbitre baa ngoongoog ñoom fii la liiru jaan ak wulli waaw jamaïcain ko defoon le 3 juillet Luc Nicolaï ne dafiy ñëw jàkkaarloo Modou Lo Ama Baldé ci Gàmbi loolu la wax waaw waaw ana ndongo Fall Italie Samba Kara waaye Khoule Omar Tawa Moussa Dia maa ngi lay béggee doomu ndar bi sama kilifa googu maa ngi koy béggee di noñ di nuyu ñoom Abdou Waxal Abdou Waxal bëgg naa la doomu séeréer la Abdou Waxal yëkkatil say loxo yëkkati na moom France Lamine maa ngi lay bëggee di nuyu Sané yëkkati na ay loxoom déggal yoo xoo yi eh cey pare nga soufflé naa am na lu mu sotti wala mu tojum nen France foo jëm. France fu mu jëm France na de ay waay Gambien yi maa ngi leen di bëgge waay arbitre daa war a wàcc wàcc na cey loola lamba ngi jamay kee de jamay kee jar naa jàppale jar naa ñaanal waa parce que nag xale te am na ambition ndax lii mu def ci Gàmbi te bii du guleet da koo tollanti kay defoon na ko fi bàyyi ma joon xoyantaan coow tax yeggul Ibulaay Poro Oto Ibulaay bu xarañ loo ca Sénégal cay jamaïcain waaw daa def affaire di leen arbitre bàyyi leen cey loolu Mariama Jàkkeer a fa jaar jamaïcain da ngaa def affaire waaye ku ne jamaïcain ne groupe baax maa ngi nuyu waa groupe baax yëpp président Massamba Dieye Soro Mali xaadim Balla wala xaadim jabu la neexee Eliman bu Tafatin Lamine boo ma seen Issa ama seen Marème Balla laay bu Faas Awa Diop ca Touba bu Balla Gaye 2 maa ngi koy bégee di nuyu 100 pour 100 Babacar cey lamb ñu ngi lewaatoo ana Cédric Marcelin Ndour yàlla fa saaxor mbër yaa ngay lewaatoo grand laay l'homme de deux ñaari mbër yaa ngay lewaatoo Papa Ndiaye bu Sowal foo féete France ak Leket a ngay lewtoo xeex amagul dara xewagul lewaatoo di xoolante cey làmb waaw waaye samedi bu ko kenn jaawale 19 arène nationale sànni na ko gos moom France arène nationale ca Sénégal Tyson 2 franc Mama Lamine Garga 2 ak Vox Arena loolu dana neex dana yëngu changement de pied bi lu ko France France ndax loolu wóor na eh Leket door na ko de gos boobu dal na de France gos boobu ñu la door dal na de France xoolal li ngay def moytul France gos bi ñu la door dal na ñu ngay xeex de ñu ngay xeex de eh te bu yàgg. lii mooy Modou Lo Balla Gaye bu Sénégal waay ñaari mbër yi waay doorante am na xeex am na Lamine Seck lamin eh, lamin Lamine combat baa ngi commencé neex mu ngay commencé neex waaye song ci kaw ci suuf balaay wax nga dëgg France na xool ci suuf bu laaw. daw na jëli fàq nañ ko gëdd ko France foo jëm France foo jëm eh laa ilaaha illallah eh laa ilaaha illallah combat ngi France cey bii combat ñu ngay lewaatoo de waaye xula li may gis ay kalasnikof ay kalasnikof laay gis ak ay kagul loolu mbaa wóor na ay kalasnikof gis naa ko de xule taalibe Baay Ñas borom ñooro waaye Habib Seck maa ngi koy bëggee doomu Nioro la eh leen boo xoolee bata tey songoo guñu France koy lekket nga koy gëdd xeex door mu daanu jël na ko door mu daanu door mu daanu door mu daanu eh. jàpp na dara sayal door. jàpp na ca la saye door Ardo Ardo Ardo leket dem na Ardo leket dem na Ardo leket léegi ku ne am nga avertissement ku ne am nga avertissement arbitre bi soufflé waat na ñu ngi waat borom rasta yi moom mooy France laaw góos jàppante nañu de daman tey baaram boo xoolee boobu tey dañuy xeex mais bëree guñu bëree guñu leen ci géew bi daw na di ko jël jël amagul ku daan Leket daan na ko eh bi nee na Leket daan bi arbitre nee na Leket ko arbitre nee na ko Leket daan ko Leket nee ko boo bëggee nga ñëw eh France daanu na ah arbitre bi day arbitre joxe na verdict arbitre joxe na verdict de Leket daan na France xanaa loolu moom cay ci lamb laa ilaaha illallah France daan na leket guddi guddi baale yoo barki Sénégal moom moom réew mi mais laket la ñu wax barki Serigne Bamba Mbacké laket la ñu wax champion la du maramaa luñ liggéey ko moom dañoo jàll féeri ñun la booy